bàyyi ba dem ci urne yi loolu ngeen soxla yow lool nga soxla n'est-ce pas du xeexam mbedd da soxla parce que du foofu ngay falo fa ngay faloo nga soxla lu la nit yéene na bàyyi lépp ba egg foofu dem dugalal la carte ñu génn ne loolu nga soxla du dëgg ah keneen nit noonu nguur yàlla koy may moo koy may ko ko soob mais bu koy jeexal ay kenn sax mënulaatee donc fii benn góor dafa ne dafa toog ak seen sëriñu daara sëriñ bi ne leen waa bu yàlla doon gane ci Sénégal ci ban kër lay dal ñi nakaan jàkka ji ak yooyu mu ne déedéet kër laa wax ah kër xanaa <laughs> yaanu ci mën a gindi mu bu ñu bu ñëwoon sama kër ñu ne fii fan la fekk ma sant jonn ñu ne jonneen ne bokk ñëwee fii ñu ne caw ah caw day lu tax ñu ne caw ñu ne boroom kër gi caw la ah comme am na boroom bokk ma man tax du ma bokkaale ñu ne fii kan la ñu ne ah fii day la ah moom moom kër gi na ah, man nag yàlla duma bokkaale nga ñëw fii ñu ne fii fan la ñu ne laayeen yàlla ne fuy laayeen ñu ne mooy fi ñu askane yàlla mu ne kon nag fii laa bokk kon nag maam li maamu loolu la def këram gi kër ak yàlla defu ko kër ak maam li defu ko kër ak doomi wala seetam maam li maamu kër yàlla la ba pare jël nag fi mu tëdd tudde ka jàmmalaay kon fi benn discours rek moo fi war a jub mooy jàmm ji sama maam am na faral bu ma wax bu may faral di wax temps yi la répétition est pédagogique parce que kay bu ko adduna déggoon dina am kenn koo xam ne mu sa mujjee la wax ci la koy door a dégg l'homme a tout inventé sauf la paix ba nga dee mën a la repose en paix wala mere ne la moi la paix mais pourquoi si tàggoo rek la ñuy door door yénente paix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 te fekk amaana sax loolu yëkkiw la amaana sax likku la saw nit ñoo la dimbaliwul rek defe naa ndax dégg ngeen bu baax fi may wax donc maa ngi ñaan Sénégalais yi mooy nañu dellu siwaat seen xel te xam ne lu dul jàmm jàmmaak gën lu dul jàmm rek jàmmaak gën nit nag booy ànd ak moom da xam kii li ko yëkki lan la nga jàppale ko ca loola waaye doo ko jàppale yow ci ne nga gisee yàlla sax kenn du ko jaamoo ci ne la neexee da nga koy jaamoo moom ci ni mu bëggee ñu jaamoo ko koo fi mën a dimbali boo ko dimbalee yow ni nga gisee mais dimbalee ke moom dama la ma bëgg te defe ku jóg ut senegal wala ku senegal Sénégal li ñu war a animé mooy jàmm Sénégal ak xéewul Sénégal lii daal mooy sunu wax. bu cérémonie officielle bi ñëwee ba ma yobalee sama rakkamaan lu baas si loolu rek la wa moo tax àddina jëpp nee nañu waa Laayeen benn baat bi lañ am mooy jàmm parce que mooy ñun ñooy waa jàmmalaay donc sunu kàddu gu jëkk ak gi mujj mooy jàmm loolu daal nu ngi la